ñu ngi yëkkatu sunu sunu kàddu yu nuyoo yu tedd yu sell ak ziar jëmee ko ci Cheikh Mouhamadinil Muntaqa di ñaan sunu borom bàyyil nu ko fi te may ko wér ba li mu yéenee liggéeyal lislaam ci toolub Cheikhuna al Xadim radiallahu anhu lépp mu mën koo def ni ma ko bëggee te nu ànd ko ak moom di nuyu bokk yëpp di leen ziar tey nag danoo ñëwoon ci sëriñ bi di ko ziar si ànd ak mbooloo mi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu indi leen ngir ñu jàppale sëriñ bi ci liggéeyam bu màgg bi ndax nin ko waxee sànq bi yàlla dogalee mu wax waxam ju tedd joojee rek ba nu xam ne moom ab modèle éducatif la bëgg a taxawal wala système éducatif boo xam ne bu Cheikhuna al Xadim radiallahu anhu la bu jógee ci sallallahu alayhi wa sallam ndax sëriñ bi moom am njàngaleem mooy njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na mu ko indee woon la saxaabatul kiraam yore woon taabiin ba mu yegsi ci cheikhuna alxadim radiallahu anhu mu yaatalal nu ko jàppandalal nu ko ba nu mën koo jariñoo yar ci ay nit jàngal leen tàggat leen ci muy njabatu boppam di ay bokkam di mboolem ñi àndoon ak moom looleen nag mooy dox ba nëga ni cheikh Mouhamadul Muntaxa moom itam yàlla dogal mu àndoon koo ki waajuram ak ki kilifaam ba yàlla dogal toogaayam bii moom nag mu ne cas liggéey boobee def ko muy yitteem mu defal nu tawféex yi nag dinu ci liggéeyloo moo tax ay xalaatam rek ak bëgg-bëggam rek lañ ci dàkk moom ci boppam itam moo koy taxawul boppam moo koy toppal boppam moo koy jubbantil boppam moo koy jëmale fa mbëgg mu jëm fa yàlla dogal loolu tax nu tànnoon ay kuréel ay commission mën nañ ko wax ci waxinu jamono ay lijaan yoo xam ne ëpp na fukk benn bu ci nekk am luñ ko jagleel tàmbalee ci alquranul karim ak li nga xam ne mooy li ñu tudde njàngum majalis ak njàngum mi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi lu ci ñu xool nuñ koy mën a gën a dëgërale gën koo mën a yaatal gën koo mën a toppatoo ba mu dëppoo ak dëkk bi dëppoo ak njàngalem Cheikhul Khadim radiyallahu anhu bi ñu demee nag ba jàpp ne loolee warees na koo tàmbalee jëmmal ñu wax commission yooyu commission bu ci ne tànn ci biiram ñoo xam ne ca la ñu nekk ñu war a mën a tàmbali doxal liggéey bi ñooñee nag yàlla dogal ñu indi leen ngir ñu jàppale sëriñ bi ak ñoo xam ne sëriñ bi moo leen tànnal boppam ngir ñu nekk ci liggéey bi ñoo ñu ñu àndoon tey ziyaare si ko barkeelu ci moom sàkku ci moom ñaan yeesalaak sunu yeesalaat sunu jaayante ak sunu laxasaay ngir ànd ak moom ci liggéeyub Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu bii di liggéeyub sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne bindeef yëpp a ko tax a jóg ñëpp a ko bokk ñëpp ci mën a jariñu ñëpp ci war a jariñu diggante bi nga xamee ne indi nañ fi mbooloo moom itam ak léegi nga xam ne defoon nañ rapport li ñu doon tuddee rapport final wala rapport définitif wala rapport boo xam ne daal mooy wane woon ne liggéey bi moom wax dëgg yàlla xam naa liggéey du jeex waaye àggoon na foo xam ne mënees na cee mënees na ko jëfandikoo bi ñëwee nag dañoo tàmbaliwaat ñoomaat yeneen i liggéey yoo xam ne day gën a day gën a càmbaraat yooyu di ko gën a yaatal di ko gën a jàpp ne di ko gën a mottali ba lépp loo xam ne rek lu ci war a mën luñ ci war a def la mën nañu ne tey jii fi ci xel toll def nañ loola loolu nag li ñëw di ko jëbbalaale sëriñ bi yàlla dogal itam agrément bi nga xam ne mooy agrément université bi ñu jot ci doon ko ko jëbbalaale loolu moo tax taxoon ñëw tey sàkkuwaat ci moom ñaan fedd liwaat sunu laxasaay fedd liwaat sunu jaayante ci Cheikhuna al Xadim radiallahu anhu fedd liwaat sunu laxasaay ci gannaaw Cheikh Mouhamadul Muntaqa fas yéene rek fépp foo xam ne joxañ ne rek ñu jëm foofa fas yéene yi duñ def dara lu dëppawut ak bëggam wala ay ndigalam. mbooloo mi gannaaw bi mu jottilee sëriñ bi ab ziaram ba noppi lim njëkk a def mooy siyaare ko jëwriñam ju mag ji nga xam ne moo fi làqu barki dem doon koo xam ne ku ne xam na taxawaayam ci gannaaw sëriñ bi ak fi mu féete woon sëriñ bi liggéey yu am solo yi nga xam ne daana ko defal sëriñ bi ci yoon bi ak ci diine ji rawatina lu aju ci njàngum alquran bokkoon ak ñun liggéey bi itam di sunu kilifa di sunu jëwriñ li ñu jiital ci siyaar ba moom mooy siyaare ko sëriñ bi waaye nag wax sëriñ bi ne ko xel yëpp dal nañ ndax diisoon na lool te bette lool waaye biñ déggee kàddoom xeli xeli xeli murit yëpp dal na xol yëpp itam dal na ndax diisoon na lool kon ñu ngi ñaan mboolem ñaan yi nga xam ne ñaan nañ ko sunu borom nangu ko te jotale ko ci yool ba defal nu ko addiyéene Cheikhuna al Xadim radiallahu anhu njaboot gi nga xam ne itam féete nañ ko gannaaw sunu borom taxawu leen féete leen fu fu fu fu kawe fu kawe njort ci barkeb Serigne Touba. sunu jëwrin di sunu kilifa waaye doonoon sunu sunu sunu soppe doonoon sunu sunu sunu sunu àndandoo doon sunu waxtandoo itam muy Serigne Mamor Mbacke moom Cheikh Amadou Fadel taxawaayam ci diine ji taxawaayam ci dëkk bi taxawaayam ci yoon bi ak ci bokk gi rek moom moom moom jagleeg sunu borom la woon kon ñun yëg nañ ne ña ña moom moom fa fa làqu na waaye nag sunu borom moom du fi jóg yàlla na nu wuutu fa nga xam ne fa la nu féete woon te fa mu jëm yàlla na ko gënal foofu fi nga xam ne fi la bàyyi ko ci barkeb Serigne Touba loolu ci gàttal mooy mooy mooy kàddu yi di sant mbooloo mi nag di sant sant cant goo xam ne seedeel nañ ko sëriñ bi di sant di gërëm ndax taxawaay bi rafet na kenn ku ci ne def na la mu war a def waaye yokk na ca pastéefam ndax ku ne xam ne ne bi ñu tàmbaleeg léegi ak liggéey bi nga xam ne def nañ ko fi loolu moom pastéef la rek waaye leneen mënu ko lu dul pastéef bu sell te pastéef nag amut fu mu yem nit ku dogu moom te ànd ak pastéef faw suñu borom gàttandu ko kon suñu borom gàttanduñu nañu gàttandu na leen gàttandu nañu ci barkeb sëriñ bi ñaan mu yegg jàmm ak salaam sëriñ bi tàmbali ko doxal ko lu yàgg lool ba fépp foo xam ne yéene na ko fa yeggale mu àggale ko fa tey ànd ko moom te wóor nañu ne luy wéy di dox rek la ndax sëriñ bi moom sunu borom defal na ko ko ba noppi te sunu borom bu mayee dutu nangu te may na Cheikhuna al Xadim lépp loo xam ne ñaan na ko fajal na ko ay aajo itam qadallahu xaajaati bi man jaana biha bis bu seen ñu di ko jàng waaye boobu ni mu gàtte rek mooy tekk li ñuy wax sëriñ bi moom lépp lu mu bëgg rek sunu borom defal na ko ba noppi waaye lu waxtoom tollu nag wala lu waxtoom jot rek loola day daal di jëmm la koy jëmmal itam la koy taxawal di jàppandi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoon tey ji nag di siyaare si sëriñ bi di yeeslu ci moom ak nag doon ko leeral ci liggéey bi fi mu toll ndax dañoo dëgmal liggéey bi jëm ci gën a jëm kanam ak di seet nu muy tàmbulee loolu nag sëriñ bi àndoon nag leen lenn ci ñi seq liggéey bi ñëw doon siyaare si sëriñ bi sëriñ bi dalal leen ñaanal leen. waaye yëkkati fa kàddu yu am solo yoo xam ne dal na xel ñëpp ndax eh, yëg-yëg bi mu ci am ni mu doone woon yéeneem ak ni mu jàppandee daal ñun xam nañ ne eh, yéeneem ak yitteem ak pas-pasam ci sëriñ bi bokk na ci liko ko waral moom nag yéemu na ci lool eh, ñaan-ñaan yu rëy rëy yoo xam ne yàlla nañ ko bokk mbokki jullit yëpp muy liggéey bu am am solo boo xam ne nag am na yaakaar lool waaye nag jullit yëpp daal rawatina taalibe yi war nañoo gën a def yitte ci daara jooju mooy liggéeyam bu ko ñor lool mën naa wax ne moo ko gën a ñor ci lépp ndax junj na ko ci biir waxtaan wi eh, musta yaakaar ne danaa dem ba mu tegu ci loxoom nii yàlla ko dogal kon ba mu ñëwee it moo doon yitteem ji gën a rëy waaye yàlla defal ko ci tawféex ba liggéey bi eh, diir biñ ko liggéey ku ne xam na ne eh, mu daq zarf qiyaasi la miinee su ko ci liggéey bu mel nii mu sotti ci diggante bi mu sottee. kon ñaanuk ñaanam gu nangu ak taxawaayam bu mat ak nag barkeeb liggéey sa liggéeyal sëñ Tuubaa mu barkeel kon euh, di gën a soññ mbokk yi ñoo xam ne kenn ku ne wet ga nga a jàppaleel na nga xam ne liggéeyu sëñ Tuubaa boo xam ne liggéey féetu kaw loolu la sëriñ bi jàpp ñun ñii mu yàlla defal tawféex ñu ne ci di liggéey xam nañ ne loolu moo nekk kon nag kenn ku ne war na cee gën a def yitte ndax bu sottee moom aajo yëpp dana faju incha allahu taala kon yàlla na sotti ak jàmm sëriñ bi ubbi ko fekkee lu yàgg yàgg ci ñi ciy génne amoon njëriñ diine amoon njëriñ réew mi amoon njëriñ yoon bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. li bi kullil janna min daari minan yaatal minna